jërëjëf mbokk yi seetaan déglu tey nag ñu daal di indiwaat poudre bisaab baax lool ci wàllu cancer ndax prévention la lu jëm ci wàllu cancer poudre bisaab am na vitamine A am na vitamine C am na vitamine E am na calcium magnésium ak fer njëriñ yi ci nekk yëpp daanaka mooy tax saa su daf lay xeexal loole nga xam ne moo di graisse bu bon boobu di LDL nga xam ne saa su ne fu mu yàgg fu ne rek indi gàllankoor xam ngeen ne bisaab bi soo ko day utiliser day renforcer sa HDL. al bu renforcé moo lay dimbali ci lépp loo xam ni dafay lay doon njariñu yaram waaye nag xam ngeen ne bisaab tamit soo ko dee jëfandikoo dafay baax ci wàllu fois bi ndax xam ngeen ne foie bi yenn saay mu am ci la ca ne di graisse te bu fa yàggee tamit day dem ba foie bi ci boppam la mu waroon liggéey dootu ko liggéey te ñàkk ko liggéey dina tax muy feeñ ci yaram bi kon moom mii di bisaab soo ko dee jëfandikoo mën na laa dimbali nga xamul ne bisaab antibiotique bu doy la ndax dafay xeex di rey ay bactéries yi nga xam ne daanaka su saxee fenn rek mën naa indi gàllankoor kon yow mi seetaan ak déglu dee ko faratal di ko jëfandikoo moom mi nga xam ne moom moo di bisaab bu xonq bi ñenn ñi sax xam ne dañoo am yaram lool am garas gu bari seeni i der seen yaram daanaka dañuy faratal di naan li nga xam ne moo di jus bisaab ngir garas googee mën a deñ kon yow mi seetaan jàppal ne poudre bisaab am na cabinet Biorahma wooteel ci